أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل المراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي ayahsibu l-insaanu an yutraka sudaa alam yaku nutfatan min maniyyin yumnaa summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwaa fa jacala minhu zawjayni zakara wal unsaa alaysa zaalika bi qaadirin alaa an yuxyiya l-mawtaa bismillaahi rahmaani rahiim hal ataa alal insaani xiinun mina ddahri lam yaku shay'an madkuuraa إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا wa yut'imuuna at-ta'aama alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira innamaa nut'imukum liwajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wa laa shukuuraa innaa naxaafu min rabbinaa yawman abuusan qamtariiraa fa waqaahum llaahu sharra dhaalika al-yawm wa laqaahum nadratan wa suruuraa wa jazaahum bimaa sabaruu jannatan wa hariiraa muttaki'iina fiihaa alaa al-araa'iki laa yarawna fiihaa shamsan wa laa zam hariiraa wa daaniyatan alayhim zilaaluhaa wa dhullilat qutuufuhaa tadliilaa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 inna hada kaana lakum jazaa wa kaana saayukum madkuura inna xalaqna linsaana min nutfatin amsaajin nabtalih fa jacalnaahu samiican basiira inna hadaynaahu sabiila fasbir lihukmi rabbika wa laa tutic minhum aathiman aw kafuura wazkur isma rabbika bukratan wa asiila wa min alleyli fasjud lahu wasabbihu leylan tawiila inna haa'ulaa'i yuhibbuuna al-caajila wa yadharuuna waraa'ahum yawman thaqiila نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعازفات عصفا والناسرات نسرا فالفارقات فرقا فالموقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست wa ida alsamau furijat wa ida aljibalu nusifat wa ida rusulu uqitat li ay yawmin ujilat yawmi lfasli wa ma adraka ma yawmu lfasli waylu yawmatin lilmukadibin alam nuhlik alawalin summa nutbihum alaxirin kadalika naf'alu bilmujrimin waylu yawmatin lilmukadibin alam naxluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'ma alqadirun waylu yawmatin lilmukadibin ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وطمة وقليلا إنكم مجيمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابق والسابقات سبحا والمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها غادفة قلوبي يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تلك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعصر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى inna fi dalika la ibratan liman yaxsha antum ashaddu xalqan min as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa axraja duhaha wal arda ba'da dalika dahaha axraja minha maaha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idha ja'at at-tammatu al-kubra yawma yatadakkaru l-insaanu maa sa'aa wa bu'thirati l-jahiimu liman yaghii fa ammaa man taghaa wa aathara l-hayaata d-dunyaa fa inna l-jahiima hiya l-ma'waa wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi wa nahaa n-nafsa 'ani l-hawaa fa inna l-jannata hiya l-ma'waa yas'aluunaka 'ani s-saa'ati ayyaana mursaahaa fiima anta min dhikraahaa ilaa rabbika muntahaahaa innamaa anta mundhiru man yakhshaahaa ka'annahum yawma yarawnahaa lam yalbathuu illaa 'ashiyatan aw duhaahaa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 an jaahu laame wa ma yudrika laallahu yadhakke aw yadhakkaru fatanfahu dhikre amma man istagna anta lahu tasadde wa ma alayka alla yadhakke wa amma man jaaka yas'e wa huwa yaxshe fa anta anhu talahhe kalla innaha tadhkira wa man shaa dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara وجعل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة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 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد غيوا بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكور للعالمين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 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah bismillahi rahmani rahim waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjiin kitaabun mawquun waylun yawmaizin lil mukazzibiin alladiina yukazzibuuna bi yawmi ddiin wa maa yukazzibu bihi illaa kullu mu'tadin asiim izaa tutlaa alayhi aayaatunaa qaala asaatiirul awwaliin كلا بغوان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب موقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون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 يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من ذكره بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من ذكره وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق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 wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al-aziz al-hamid alladi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid inna alladina fatanu al-muminina wal-muminat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu al-hariq inna alladina awaw amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzu al-kabir inna bashsha rabbika la-shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id huwa al-ghafuru al-wadud dhul arshil majid fa'aalu limaa yuriid hal ataaka hadiisul junuud firawna wa samuud bal allaziina kafaruu fii takziib wallaahu min waraa'ihim muhiit bal huwa qur'aanun majiidun fii lawhin mahfuuz bismillaahi rahmaani rahiim wassamaa'i wat-taariq wamaa adraaka mat-taariq an-najmu as-saaqib in kullu nafsin lamaa 'alayhaa haafiz falyanzur al-insaanu mimmaa xuliq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 والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى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 فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية إن أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا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 بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذة الذي جمع ماله وعدله يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 salaamaaleykum. salaamaaleykum. Allahu akbar. Allahu akbar. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Arrahmaani rahiim. Maaliki yawmi ddiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinaa siraatal mustaqiim. Siraatal laziina an'amta alayhim.